Bonsoir, très chers internautes de Guédouin Info TV. Aujourd'hui, nous sommes avec le grand champion Abdou Diouf, un leader surnommé le Jean Adiwalo, de par son gabarit, mais également de par sa taille. Il est également un homme de défi, parce que quand Aliou Faye était intouchable et intraitable, c'est lui qui a mis fin à son invincibilité. Monsieur dame, ce longiligne de l'Ekiriwalo est connu pour sa témérité, mais également pour sa personnalité dans l'enceinte. Il est le tombeur de Gribodo, il est le tombeur de Brisley, mais également il est le bourreau de Tchèque. Très cher internaute, comme à l'accoutumée, permettez-moi de faire une transition dans la langue de Coach Bamba. bokk internaute tay ñi ngi ak champion mag bi Abdou Diouf mu doon mbër mo xamanteni ni ñi ngi ko duppee les gens di walo ndax tolluwaayam ak gabarem. mu nek également un nombre de défi parce que bi Aliou Aliou Faye Pakale waxee xaat kenn ñëmu ko jël ñu bëri diko moytu mom mo jël avance am njëkk ko déggloo mu ñël mbokk yi njool écrit Waalo bile ñi ngi ko ràññee ndax safaram ak fulam ak faydam ci biir géew mo daan Gribordo. moo daan brisle moo daan itam cek ñu bàyyi ko rek mu nuyoo présenté ak bokk internet yi mbër ñu ngi lay nuyu di la ziar waaw onze billahi min setan rajim bismillahi rahmani rahim bon maa gannaaw bu ma sant yàlla di julli senante bi di sant suma ñaari waajur di leen sant di rafetlu tey vraiment fi ngeen ma fekk nii tey waaw waaw mbër léegi pour tàbbi ci waxtaan bi rek ma laaj la kan mooy abdou diouf waaw abdou diouf moom ndongo daar rek la abdou diouf vraiment euh, Sénégal yëpp benn Abdou Diouf fi am Abdou Diouf buy bëre def naa ni moom duma Abdou Diouf président ñu duppee ma euh, Abdou Diouf président waaw man man la Abdou Diouf mbër daal waaw Sénégal yëpp xam nañu Abdou Diouf mbër waaw. waaw ah, mais tur bi fu mu jógee quoi parce que bu njëkk dañ doon dégg Abdou Diouf mais ñu bëri dalee tur bi da leen di jaaxal fan la tur bi jógee. waa tur bi nag euh, xam nga yàlla dafa def nii man bi may bëre mbapat damaa njooloon. boobu dama tuuti woon nag ci jamonoy Abdou Diouf ma yoroon bëri bu di di di toj mbapat yi yàlla def euh, ñi may woowee njool mi euh, ci benn sam benn combat boobu Balla ni ma Abdou mu ne ma comme que Abdou Diouf leen lay tuddee sa njoolaay léegi dama bëgg euh, nga jël sa bopp tuddee duppee ko Abdou Diouf président ci laa def ci la mu wutal drapeau vert zone rouge dessiné Abdou Diouf ci laa ñëw sama combat Gris Bordeaux ak samay combat ñoom Saalum Saalum combat yu bëre drapeau bu laa doon indi waaw après lañ tere photo sëriñ yi ak photo kii yi quoi tax mais man drapeau Abdou Diouf laa doon ñëwee ndax sopp Abdou Diouf président waa maa ngi ko nuyu fi mu nekk waaw. Ah, kon foofu daal la tur bi jugee te mun nañ jàpp ne nekkul tur boo xamante ni dafa ñëw au hasard. Euh, loolu bu loolu weesoo ñu daal di xool mbër bu ñu convoqué sa carrière donc sa nombre de combat bëriwul quoi mun naa ni say combat lim bi dafa xaw a néew tooy lan moo mën a expliquer loolu. waaw ci maanaam bi ma demee ba bi may bëri nag ay deuxième combat troisième combat boobu dama naan bëri lu bëri mais bi ma commencé bëri grand combat man bi may bëree grand combat boobu grand combat neexut a bëre xam nga da ngay bëri quatrième combat bëri deuxième combat bëri trois xam nga noonu ngay ba bëri grand combat. yàlla def bi mu bëree xam nga rek gars yi di ma xaw di sóoraale ñi ma war a bëreeg man duñ bëreeg man moo tax xam nga looloo tax sama com samay combat ci at yu mujj yi bariwul mais bëri naa ay vingt et quelques man bëri naa fu ne jël naa fi ay tournois xam nga bëre bëri ay waaw def naa fi daal bëri naa Sénégal bëri Europe bëri fu nekk waaw waaw yàgg naa bëri daal waaw. mun nañ jàpp ni problème adversaire moo tax combat yi xaw a néew. waa premier adversaire xam nga gars yi moom dañ lay sóoraale surtout bi ma bëreek euh, pakala daan ko xam nga pakala ñëpp ko doon moytu ma jàpp pakala daan ko yàlla def bi ma ko daanee ba pare xam nga après ma toog lu yàgg bëriwuma ci lañ ma jox ceeg ma dóor ko mu daanu xam nga après ci laa daan ay Malal Ndiaye champion d'Afrique avant boobu mais gars yi daal dañ ma xam rek xam nga làmb booy dóor di bëre ñoom dañ lay sóor dafa am combat ñuy gars yi dañ lay teggi lolo tax mais man yàgg naa bëri daal mais gaay ñoo moy soral quoi di am lu ñuy ci Abdou Diouf motax tax beure bi di am. wa bu loolu weesoo mbeur mu am ay jamono yo xamanteni ni da nga xawon am ben problème ak ben jemi donc ban xaw la ci téye sa ak dir est ce que loolu xawul ralentir tout sa carrière. wa mais xam nga lolou mom mbirum yalla moko bindon ci si sama sama sama sama dundu parce que lolou bi may dal yàgg na. vraiment boobu ci laa bëreem xam nga Ouza ñaar yoon lañ bëree sama premier combat Ouza bi ñu bëree ba pare sama équipe moo doon fubal muy waali daan ak ak waali daan ak ak ak ban équipe waay euh, équipe bu bi nu mu tudd sax non du caddo de waaw jàmbaar waaw daan jàmbaar waali daan jàmbaar ñoo doon fubal yàlla def ma ñëw toog ci suuf yor sama see toog xam rek jamono yooyu zemi yi ci le zemi bi ñew xam bi wal daan dug bi jambar dugale ni ñi jëb jubi la nonu ma yëkkati sama seen ni quoi ci le zemi bi ñew door ma ni ma fi fii lo fu tok xam ma ne ko mais sa way man dama jënd sama seen mu ne ma no waroo fu tok ci le mu door xam ma après ñu non mais affaire ndaw rek la won dal vraiment reccu nako trop xam ma waaw reccu nako parce que vraiment du sax man mais ni ñi sama ginaaw kéro képp kuy autorité Sénégal yàlla def na def na ci ay jéego ya xam nga boobu jamono yooyu euh, dem nañ ba ci mi sëñ Mansour Sy yàlla na ko yàlla yërëm te yokk leeram mu dem woo ministre ba direct yàlla def moo tax ci la waslu ak ba affaire yi alhamdulilah mais niñ ko yaakaare woon mënoon naa gën a metti waaw ma maa ngi jégalu ñi noonu yëpp waaw loolu la quoi waaw waaw mbër bu loolu weesoo mu am aussi benn combat boo xam te ne tey mun naan tout long de ta carrière dafa marqué ñu bëri muy sa combat contre Pakala parce que jamono bi nga koy jël nekkoon na ci lancé boo xam te ne bu extraordinaire la donc jóge ci lutte simple bi di wane boppam mais également mu ñëw ci lutte avec frappe bi donc di ci def lu am solo ba ñu bëri sax dañ doon wax ni bu ñu xoolee Pakala rek donc dañuy gis Yaxya Joob Yékini ci ko daal di am moom am ci moom ndaw avant tout lan ko boobu yàlla dafa def ni tafaatin mu daan ma te bi may jël boobu dama nekk ci claf euh, daanaka daan fa xaadim njaay numéro 2 daan fa Ousa Sow euh, ak euh, Souley Top Souley Top ñëw daan ma xaadim njaay 2 daan Souley Top ma daan xaadim njaay 2 xam nga pool bi jaxasoo ñun ñun ñett ñëpp ku ci nekk daan xaadim njaay yàlla def ma am lu ma metti voyage bëriwaat ak tafaatin tafaatin daan ma je la dem espagne bi ma espagne tok lu yag ñew bima ma papa abdou fall woo ma ni ma ah fi de wax deug yalla abdou pakala mo fi nek te gaay dañ koy meutu ma wax ma waxtana sama mbokk ñu ne ma non abdou yow bul jël pakala pakala dafa nek ci yoon man len man ak lima def ci lamb pakala suma ko jappé gis na bërem dama koy japp mako man limay bëré xajul ci mom xam nga gaay yu bari ni won lool du am mais yalla def ma jël combat bi gis nga yalla may ma ci ndam waaw loolu la demee mais bi ma bëreeg la ba léegi nag moom mu indil ay xam nga ci laa bëreeg ci laa bëreek cag daan ko xam nga mais après ci la ma daal gars yi ci laa toog lu yàgg bëriwuma toog quatre ans boobu ma sama combat ak Bombardier sax am na benn promoteur bu ko bëggoon yàlla def Bombardier pare man ma pare mais après Balla Gaye wëlbatiku yàlla def moom ak combat bu taxaw ma toog lu yàgg bëriwuma te man mbër laa ci lañ ma proposé euh, ci lañ ma proposé Forza xam nga boobu dama perte repère ku toog 4 ans bëriwuloo yàlla def mu daan ma mais teewul nag boobu ba léegi ñëwaat naa maa ngi ci làmb bëgg promoteur yi ñëw xam ni daal man aw ma lu gën làmb parce que vraiment lu ma am làmb moo ma ko may waaw moo tax ma ni man daal maa ngi samay entraînement di déglu promoteur yi waaw. waaw waaw mais mbër combat boobu coow li ci laxas woon dafa bari quoi xam nga ñu bëri doon wax waru ko jël ñii ña ñu bëri daal jox aussi favori pa nga xam te ne mooy paka la tey psychologiquement nan nga doon dundee coow loolu ak engouement bi am ci ci ci ci waaw non coow li bëri na woon ci ñi xamul Abdou Diouf mais ñi ma xam xamoon nañ ni paka la ba may bëre mbappaat bariwul mbapat du dëgg man xam naa ni daf na toj na mbapat yi mais man tamit toj naa mbapat yi parce que man na Nations ni man maa ko jël stade Iba Mar jamono yooyu ay ñoom Cheikhou Diène ñoo gënoon doy waar xam nga ay ñoom mool waaw ñoom ñëpp dama leen jàpp daal leen tu dëgg yàlla def jël tournoi bi moo tax combat boobu ñi ma xam xam ne ni man maa mën mën naa daan ku dul la waaw moo tax gis nga bi combat bi amee dafa yomb ci man loolu daal waaw dafa yomb ci man waaw waaw mbër bu loolu weesoo sa diggante ak Gris Bordeaux donc ay jamono coow li bëri woon na trop xam nga ba foo leen daje dëkkante ba commencé échanger ay coups sax coow li bëri lan moo waraloon loolu aussi. waaw xam nga Gris Gris comme rek xam nga ñoom équipe bi ñu nekk moo leen may yenn coow yi mais Gris dama ko jàpp stade Iba Mar duma ko daan ko ci ay secondes xam nga nit ki bu la daanee làmb moo tëradi mais man waruma ko woon sax nekk di laaj mais mais gars yi ñi war a bëreek yow duñ bëreek yow. moo tax da ngay toll foo xam te ni moo tax ma koy laajaat xam nga man li ma def ci làmb Gris Bordeaux def ko ci làmb victoire yi ma bëree yi ma daan daanu ko bëre yi ma bëree bërewu ko mais làmb moo doy waar ba ñoom day yenn mbër yooyu dañuy xaw a jalousie quoi dañuy war a bëreeg yow xam nga mais dañuy xalaat ni kat kii buñ bëreeg yow bu bëreeg yow xam nga moo la maa ko gën a cher war naa mën a am dañ lay xaw a jalousie daal waaw dañuy xaw a waaw looloo tax quoi waaw mais ba fi mu toll nii actuellement ku la ku la ku la joxoon avance nga jël ko bëri moom. waaw man ku ma jox avance am ma bëree parce que man man man man ci luy dundal làmb laa laa nekk parce que euh, toog naa combat yi ma bëri yëpp bëgg bëre moo tax ma wàcc bëre ak Forza Forza maa ko raw ci làmb mais gis nga ni ma wàccee bëre moom kon man ci ñuy dundal làmb laa bokk kon man boo yëpp dama leen may bo maa ngi dégg booy Siteu booy bi xam nga am na coow. comprendre nga te mi ngi laaj amaa Baldé moom li ma def si làmb def ko su bëggee ma ñëw ma may ko chance ñu bëre waaw ma defal ko affaire parce que booy xam nga rek waaw faaw ma wàcc wan leen ni man maa ngi ci làmb ji te ñoom dama leen di jàngal bëre waaw kooku am na yeneen combat may wax mais sita su ma su pare naa su bëggee pare naa pour bëreek moom waaw. ah mbër tarkindaa bi ngay waxal nii de bu paree pare nga pour jël ko dafa séq ak moom lu lu metti noo xam naa ne dafa am coow moo tax te gars yi mooy lu mu wax dañ te moom xam naa ni moom amul muy ragal waaw Siteu su paree pare bu paree man pare naa Ama Baldé dégg li mu wax nee na xam nga bu doon moom moom rek day jël Siteu mais encourage am ci boppam ñoo buggul Siteu xam nga mais léegi kon comme que amul keneen ku mu bëree man maa ngi nii na ñëw ñu maye ko waaw ñun la jàpp daal Siteu bu pare yow pare nga pour bëreeg moom. waaw su paree moom pare naa quoi su pare rek man pare naa pour bëreeg moom waaw pour may ko sens maa ko raw ci làmb nag li ma def ci làmb def ko victoire yi ma bëree bëriwu ko waaw dama koy may sens rek nag waaw. waaw ah, mbër ñu gis aussi bu njëkk auparavant da nga doon toog fii concentré wu ci làmb ji moo xam am nga combat wala amoo combat da nga doon nekk ci entraînement yi.